تُمْرُونَ mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñu jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 ma anta bi ni'mati rabb délégation bu am solo bàyyi ko ci njiitu réewum Gambie Adama Barrow mi ngi woon dibéer juróom-ñaari fan ci novembre 2021 ci dëkk bu tedd bi Touba ginnaaw bu ñu leen gàttandoo ci dëkk ba fi ñuy jëkk agsi mooy fii ci daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop jëwriñu daara ji dalal leen ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ngir berndeel leen bokk na ci ñi ci jiitu woon ministre Moussa Dramé mi yor wàllu suuf sa foofee ci Gambie ambassadeur bi toogal réewum Sénégal ci Gambie son excellence monsieur Bassirou Sène naka noonu itam ambassadeur Gambie bu bees bi ci Sénégal ñiy xelal njiitu réew mi jiite lépp aju ci wàllu lislaam ak imaam ba ci ki nga xam ne moo teewal xalifa général des mourides ci réewum Gàmbi ginnaaw nag waxtaan wi ak dalal bi ñi ngi dajee dajeek Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ca Daaru Minam ginnaaw bu ba Bassirou seen feddalee li nga xam ni mooy illa ji nga xam ne moo leen indi ambassadeur bu bees natangoom bi nekk ci Sénégal teewal Gàmbi rafetlu diggante réewum senegal ak Gàmbi ni muy doxee laata nag ñuy jox ki nga xamante ni mooy El Hadji Dembo mi jiite wàllu lislaam te di ci xel njiitu réew ma mu wax li waral seen fii ci Touba loolu nag chef de délégation bi sàkku na ci sëriñ bi ay ñaan jëmee ko ci njiitu mu Gambie président Adama Barrow rawatina ci jamono yi nga xamante ni ci la toll di sàkkuwaat réew ma. Eh, mu ne ñu ngi laa yëgal ne président Adama Barrow. moom ci moom ci boppam. moo bëggoon a ñëwal boppam. dañ xat. te umpula yaa ngi dégg xew-xew ya fa ya faa xew. ne ñu ngi sàkku ci sa ñaan nga dimbale ñu. nga ñaanal ñu. li ñuy ut li ñuy yàlla may ñu ko ci taraanga ak jàmm ak salaam Gambia ñu def élection bi yàlla musal ñu ci bu fa benn fitna am. ay kàddoom Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides xamal na délégation bi cant gi mu am ci tànk yi nga xamante ne am nañ ko ak yaakaar ji am ci Serigne Touba Khadim Rasoul. xam Serigne bi. nee na gën gën naa am yaakaar ci xam gu mu xam ne li leen fi indi gën a xam sëriñ bi. tax na gën a am yaakaar bu baax a baax. nee loolu tax na mu gën a am yaakaar bu baax a baax. mi ngi am rafet njott gu sëkk itam. nee na mi ngi am rafet njott gu mat sëkk itam. li leen fi indi. ci li leen fi indi. danañ ko am nañ ko bëggee. ne di ngeen ko am ni ngeen ko bëggee. ndax ñoom wax waxal nañ ko seen bopp. mu ne ndax yéen waxal ngeen ko seen bopp. Pastef bi rek moo ci am solo. nee na Pastef bi rek moo ci am solo.